Vous me permettrez d'abord de remercier euh, la presse qui est à l'honneur, puisqu'il ne s'agissait pas d'une AG de mobilisation, mais juste d'un point de presse. Mais quand les militants et responsables de Ndamdi ont eu écho que nous allions, n'est-ce pas, organiser un point de presse, alors ils ont tenu à se présenter. C'est la raison pour laquelle nous avons accusé, ce retard et nous en sommes contrés. Euh, je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont présents ici, n'est-ce pas, aujourd'hui pour euh, assister à ce point de presse. Aujourd'hui, nous voudrions nous prononcer par rapport à notre position. Effectivement, depuis que nous avons créé le mouvement d'Amli le 8 octobre 2017, d'Amli dénommé Ndaouyou Manko on s'était fixé comme objectif principal d'accompagner le président de la République, son Excellence Macky Sall. afin de lui donner la majorité à Thiès en 2019. Comme autre objectif, euh, nous voudrions aussi nous massifier en vue des prochaines échéances locales. Puisque notre ambition pour Thiès n'est plus un secret de polichinelle. On veut contrôler la mairie de Thiès. C'est ainsi que le mouvement Namli s'est investi dans les différents quartiers et aussi dans le département pour implanter ses bases, et ce, avec ses propres moyens. Nul ne peut réclamer la paternité de nos actions. Je parle devant la télé et devant la radio. Nul ne peut réclamer la paternité de nos actions. À un moment donné, nous nous sommes un peu démarqués de la mouvance présidentielle à cause du comportement de certains responsables occupant pour la, pour la plupart des postes de responsabilité que leur a confié le président de la République. Ces derniers se montrant trop inaccessibles, voire trop jaloux de leur position. N'eût été l'intervention du directeur général de la Poste, Monsieur Siréga? nous allions prendre la mauvaise décision qui consisterait à ne plus accompagner le président Macky Sall. Ainsi, le mouvement d'Amli réitère son engagement solennel à accompagner le président Macky Sall et surtout à travailler vivement aux côtés du DG Pape Sireja, coordonnateur naturel de la coalition présidentielle à Thiès, puisque son ouverture, sa largesse, sa promptitude à accompagner les jeunes et les femmes ne sont plus à démontrer. Il n'a qu'une seule ambition, et il le dit tout le temps, c'est de réélire le président de la République en 2019, ce qui rime exactement avec notre ambition. Et avec le mouvement d'Amli, la victoire est assurée. Sank, Mangi remercier presby parce que Taï. point de presse la ñu waxoon te bu ñu wax point de presse boo gisee initialement dañ ko jàppoon sama biir kër ci benn salle bu ndaw mais bi nit ñi ñëw sax pour pour vous dire dama xaw bett ndax bu fekkee da ngay liggéey ak ay nit kii di bay Cheikh mooy coordonnateur du mouvement ndam wax na ko léegi il n'était pas prévu ñu def mobilisation mais ba ko responsable yi ndam yi déggee ñi ne Tassette ñi ne Canaba ñi ne Fayoub Seras fu ne ñu dégg ko dañu ni mënuñoo dégg ni Ousmane day def benn déclaration te ñëwuñu loolu moo tax ñu jóge ci kër ga sax ñëw wàcce leen fii kon mi ngi remercier presse bi ci ngeen ni ngeen accepté ñëw fekke jotaay bi mais di remercier aussi képp ku fi teew ndax dafa jot aussi bu ñu mouvement boo xamante lancé depuis le 8 octobre passé ñu lancé ko xëy nous ñu bëri mouvement Ndam li ndax politique dafa am loo xamante ñun lañ politique du tambour ak trompette rek. man gëmu boobu xeetu politique li ma gëm ci politique mooy ngay dem ci nit ñi di wax ak ñoom di diisoo ak ñoom te ñi ñu àndal amul benn dërëm buñ leen jox dañoo ànd ak ñun rek ngir principe te nee na depuis 2014 ñoo ngi ànd waaye ku ne xam ne Ousmane Mbaye amul dërëm bu mu jox kenn kon bu ñu demee bay ànd ak Ousmane Mbaye dañoo am yaakaar ci moom am gëm-gëm am principe depuis lors defe naa ñi fekke woon bi ñuy lancé suñu mouvement suñu objectif principal waxoon nañ ko moo di dañ ñëwoon dañuy accompagner le président Macky Sall pour jox ko majorité à Thiès. objectif boobu ñu fixé woon muy suñu objectif un musuñu cee jóg bu fekkoon dafa changé sax ñu ni diw dafa changé position mais changé wuñu position. beneen objectif bi wax nañ ko sànq moo di dañoo pare woon ñun mouvement ndam li pour teg loxo ci mairie Thiès surtout la mairie Thiès Est kon yooyu ay objectif yi ñu fixewu la woon loolu moo taxoon bi mouvement ndam li bi ñu ko créé ndam li dugg na ci quartier yi dugg na ci département bi moo tax boo déggee muy présenté léegi quartier bu nekk cité na la fa département cellules def nañ activités dogal ñu pour wax leen suñu position demoon nañ ba benn jamono suñu suñu boobu ñu ngi liggéey ci suñu biir waaye tey sunu bopp mooy ni ñu gisoon yëf yi di ko doxee ci ñañuy jàppale neexuñu woon ba demoon nañu ba ñuy jël décision boo xamante ni sax xam nañu décision boobu décision bi gën te mooy bañ jàppale le président de la République bu dul woon le DG Siré Dia bu dul woon moom ñu ni dinañ jël décision bi nga xamante ni ba gëm nañ ni baaxul ci réew mi te dinaa wax léegi li tax baaxul ci réew mi moo tax mouvement Ndam li dafay feddali tey li mu waxoon ni day accompagner le président Macky Sall waaye fas yéene ci accompagnement boobu mu ànd ci ak le DG Pape Siré Dia li tax loolu nag raison yi bëri na wone na ak ubbeeku wone na ak woyof te ku ne gis na ni aussi li nga xamante ni moo ngi koy créer ci emploi ci jeunes yi ak li nga xamante ni moo ngi koy dimbalee femmes yi donc boo gisee nit koo xamante ni mu ngi def loolu surtout ci jeunesse thiessoise di ko def ci jigéen ñi defe naa ni bu fekkee Thiès ñomal na la Thiès intéressé na la war ngaa mun a ànd ak moom liggéey d'autant plus que ñu ak moom ñoo bokk ambition suñu ambition mooy fexe bu président de la république am ndam ci Thiès. loolu moo tax tey. Ndamli, ni woon na woote point de presse bi pour wax leen la nga xamante ni moom position Ndamli, fas yéene na ànd le DG Sirédia pour jox le président de la République une majorité absolue à Thiès te bu ngeen dégloo Ndamli, Ndamli, ndam dafa am ñaari sens boo déggee ndam rek moom mooy lan victoire ndam moy victoire waye bokoy koy tas mooy ndaw yu manko liggéey ndaw yo xamanteni dañu manko liggéey kon ñooñu buñu manko liggéey ci cartonu yalla victoire bobu dinañ ko am rawatina nak ñi and ak ko xamanteni japp nañ ni liggéey rek la gëm muy le DG Sirenja motax ñu gëm ni buñu ak mom ci cartonu yalla victoire bi nga xamanteni mom lañu bëgg ci commune Thiès bëgg ko ci département de Thiès bëgg ko ci région de Thiès sax insha allahu ko am

ak le DG Siré Dia joué na ci rôle bu ama ama ama am solo ndax ñun dañoo xaw a dëgër bopp tuuti ñi ñu xam dëgg xam na ni dañoo xaw a dëgër bopp tuuti te bi ñu demee toog ak DG Siré ba mu ma déggoo ba mu ma dégloo nee na ma Ousmane musuma gis ku dégg ku dëgg ku dëggoon yow ndax képp ku ñu ànd rek ci dëgg la ñuy àndee ak yow bi ñu waxee ak moom ñu xam ni moom aussi dëgg rek moo ko intéressé ci la ñu jëlee suñu décision ni nañu and ak mom liggéey kon loolu nak moo waraloon ñu woo presse bi tey loolu aussi moo waraloon képp koo xamante ni ci ndab li nga bokk képp koo xamante ni sympathisant nga nga ni nag naa ñëw déglu tey li nga xamante ni moom la Ousmane fas yéene wax ak nit ñi donc euh, wasalaamu wa rahmatullah merci euh, Babacar sa question bi dinaa sawar répondre ci euh, lan moo ma ci yeneen responsable yi bugguma toujours su may wax sama mbir di xarab ko mais man dafa am ci principe bu may dox gis nga bu ma toogee ak nit ñu waxtaan gis nga même le DG Sira li ma waxtaan ak moom bu ci teg yoon virgule rek bu ëllëgee du ngeen gisati ma ànd ak moom ba ma ci ku nekk ni Ousmane ku ne lay àndal ba ko de waaye xam nga lan man naa xam sama ak yàlla ni ci principe rek laa ko teg mais ku may àndal dinaa ànd ak yow ci principe yu leer bu ma gisee nga tegg ci benn virgule dama la fanaan ñub dem ndax yàlla moo yor ñëpp mais li sama xel dale ci moom moom waxuma la man rek mais bari na ñu mu àndal ñoo xamante ni la mu waxante ak ñoom def na ko mais beneen bi aussi ma toog ak moom mu wax ak man kàdduy gor li ma Ousmane xoolal li ma créé ci emploi ci Thiès. bu ma du ko laam-laamee amul quartier booy dugg boo xamante ni amul jeunes yoo xamante ni DG Siré Dia jël na leen ñuy liggéey amul. yoo xamante ni soxla nañu financement bëgg aussi politiquement ñu jàpp ñu ba ambition bi nga xamante ni moom la ñu am ci cees ñu mën ko wëyal mu taxaw jël engagement nit ñi ci kartanu yàlla yooyu yépp dinañ ci jàpp. parce que li ñu intéressé moom moo la intéressé te mooy falaat président de la république donc nit ku la jox kàddoom noonu nit ku la jox kàddoom noonu defe naa ni la nga mën te muy kilifa mooy ànd ak moom ci loolu te ci te wax dëgg yàlla am na loo xamante ni jot na ko cee wone am na loo xamante ni jot na ko cee wone kon donc loolu moo tax sëñ Babacar ñu ànd ak moom la ca des ca yeneen i responsable nag ay détails la bugguma sax di wax di sànni xeer kenn mais xëy na aussi seen i comportement peut-être tax na ba ñun mënuñu ànd ak ñoom parce que xëy na booy ànd ak nit àndum nawle ngay bëgg di ànd ak nit mais ñun bëgguñu bëgguñu doon ay politiciens alimentaires ngay ànd ak nit rek mu lay mu lay jox xaalis képp ku ñu parce que dafa am benn mag lu mu wax nee na képp koo xamante ni mu ngi lay jaay xam-xam jaay ko noppi bu la jaayee alal jaay ko maandu bu la jaayee alal jaay ko maandu bu la jaayee xam-xam jaay ko noppi kon ñun nonu la ñuy andu ñu kenn ngir alal ñu kenn ngir lenn dañuy and ak képp ko xamanteni fasiyene nga japp le président de la république ñu and ak yow ci principe te principe yoyu lañu gis ci DG Sira Dia te tant que principe yoyu mu ngi ci dañ insha allah dañ ko dina di and ak moom wa pour parrainage bi euh, c'est vrai que yéx nañ ci dugg mais ñongi ñongi ñoo

te wóolu ko commencé ci liggéey bi. Mhm. loolu moo tax ba ñu ñëwee rek ma toog ak waa mouvement Ndam li laa leen jox fiche parrainage yi nii leen commencé leen parrainage bi. c'est vrai que fekk nañu suñu membre yu bëri ñu toog naan Ousmane ci lu mu ne Ousmane ci lu mu ne ñu bëri ñoo xamante ni jotoon nañ joxe seen fiche waaye jot nañ ci récupérer lu bëri te am na ñeneen ñu ñu war a récupérer waa Tassette yaa ngi ñuy xaar waa ba yaa ngi ñuy xaar te am na feneen fu ñu war a dem ay côté Tiwaawan ak fépp Tiwaawoon yóbbu nañ fa ay responsable ba tàyyi te lañ fa amoon moo fa nekk ba tey kon yooyu yëpp nag ci kartanu yàlla fas yéene nañu faa dugg pour li nga xamante ni moom la président soxla ci pare parrainage bi 130 000 yi la ñu ca man mënuñu ko jox 130 000 yëpp waaye la ñu ca man ci kartanu yàlla incha allahu daañu ko ko jox la nga xamante ni moom lañ ca man